je suis ministre donc je dois. faire mais honorable su may déggee li ngay wax nii moo nekk li nga xam te nii loolu la loolu lay. mooy suñu programme tekki waaw d' accord mooy. programme tekki bu jëlee réew bi noonu lañ koy doxalee. d' accord alors ba yomb na su ma jëlee ni laay doxalee après gis nañ leen après nu ñuy nu ñuy doxalee Macky Sall noonu la woon président yu bëri. ah non Macky Sall loolu la woon tel tel tel tel tel tel alors Macky Sall noonu la woon. maintenant maintenant honorable honorable da ngay dégg. tey jii eh, ni nga ko waxee mais bu ñu gisee député yi nga xam te ne tey jii ni ay yu yees lañu te toogoon fii doon clash doon wax député ni mu war a mel lan la war a taxawee mais ñu gis ay député yoo xam léegi dañuy nekk assemblée nationale di saagante di xeex di xuloo violence bi mais di sànni sax ay majeur ay soxna loolu aussi honorable est-ce que waroon na nekk taxawaayu député yi surtout ci kujje politique yi bi nga xam te ñoo doon kaas ba su yàlla sàkk ci assemblée nationale ñëw di doxalee nu ni loolu effectivement warul am man ànduma ci jàpp naa ne euh, ñu ñi sax nekk kilifa assemblée nationale. Hmm. nekk ci bureau bi wala président groupe jot nañ cee waxtaan. Hmm. muy Biram Souley muy Lamine caam ak man ak ak euh, Oumar Youm. Hmm. Euh, bon circonstances yi ñoo ko jàpp naa ne lenn loo xam ne du law circonstances yi mooy effectivement Macky Sall a été battu. à l'Assemblée nationale dafa tàmmoon une assemblée à sa solde loolu la tàmmoon te def nii am lu mu bëgg léegi ñu dem nekk match nul presque. ba match waaw presque heureusement ba nga rectifié. presque match nul voilà voilà. daaneeloon nañ leen sax mais dañoo am chance. parce que quatre-vingt-dix députés ñu waroon am bon quatre-vingts la ñu am ok yu wàllu nañu ils ont fait ce qu'ils ont fait et cetera ensuite ñu am benn crise au sein de Benno Bokk Yaakaar Mimi Touré c'est pas n'importe qui madame Aminata Touré premier ministre de Macky mooy moo diriger campagne m démissionné du groupe de Benno Bokk Yaakaar donc ñoom dañoo affolé dañoo affolé donc seen comportement affolement boobu loolu moo aussi réagir ci Assemblée nationale donc ñu nekk dans une situation de crispation tàmmuñu loolu dañoo tàmm régner def lu leen neex ñu am une situation nouvelle mënuñu mënuñu ko gérer en réalité c'est ça le fond du problème moo andi crise boobu moo andi ñoom. nekk majorité assemblée national ba pare di am ay. crispation situation nouvelle majorité écrasante la ñu amoon def lu leen neex léegi amatuñ ko donc ce qui fait que ma foi gis ne man mii su may wax dañ may saaga di ma koupe yow su may sooy dégg lu ñu may wax ci suuf mais <laughs> mais voilà. mais man toppatoo ma loolu. Hmm. Ah, ah, ah, ah kilifa laa suñ ma ko nangulee samay mbokk nangu nañ ma ko samay samay samay nawle nangu nañ ma ko donc c'est pas un problème pour man. Hmm. donc loolu moo andi dérapage yooyu. et pourtant on a pris des des des, des avertissements président assemblée nationale euh, man seeti woon naa ko président assemblée nationale bind naa ko ne ko attention c'est règlement intérieur bi dafa y a du faux là-dedans quoi. ah da nga koy retiré bon dégluwuma hmm. les jours où il y les événements je pense que Sanu Dione ak Ibrahima Diop les deux députés là euh, euh, waaw ñoom ñaar ñaar ils ont averti génne nañu article 51 je crois mais attention monsieur le président faut prendre des mesures hmm. préventives hmm. bon il a pensé pouvoir gérer bon voilà mais xam nga dérapage su am rek day am day am c'est regrettable kenn andu ci d'ailleurs bu mu amee on a pris des initiatives dox ci waxtaan ci mais wax génnoon leen dénoncé ko comme di ngeen doon dénoncé cour rapport des euh, cour cour rapport cour des comptes euh, yooyu yëpp defoo leen ko quoi maanaam maanaam dénoncé ngeen ko mais en solo. waaw parce que parce qu'il faut régler le problème et avancer. problème bu nekk ak noo koy régler la. bu doon bu doon bu doon ci beneen camp adverse euh, adverse bi la est-ce que dina di ngeen ci taxawee comme ni ci taxawee nii. non parce que moi waaw parce que assemblée nationale nee naa la ma ko gëm. c'est une institution qui doit donc du ma nangu ñu jikko sa ki di ko fooyee di ko nasa xal du ma ko nangu parce que xam naa ne ñoom ñoo gëmul assemblée nationale waa Benno Bokk Yaakaar. d'accord waa APR comme tu ma a man assemblée na mu mënta mel. Mhm. député na mu na ñu man a mel tamit. Mhm. ah danaa góorgóorlu ak ñoom. Mhm. danaa essayer wax ak ñoom. ñu ma ciy saaga sax ñoom ñëpp man danaa wax ak ñoom. d'accord ñu ma ci sosal ak yëpp danay wax ak ñoom parce que pour man amul solo lu may viser. que l'Afrique doit sauver le monde si loolu moom a ñoral. d'accord mais daan ñu leen daan nii kon d'accord nga ci. ñan daan ñaari député yooyu nga xam te ne nii ñoom. ma on a vu le président on a n'a pas accepté euh, on avait même un accord entre les trois présidents du groupe euh, euh, bu ñu bu ñu dajee ñoom ñaar discuter un plan bon finalement euh, les groupes ont accepté le groupe parlementaire man sama boss a ah, nee nañ Alamine Euh, Biram Tamit wax nañ ko feu vert mais du côté de Oumar Youm ils n'ont pas accepté c'est finalement ils ont enclenché la procédure judiciaire. d'accord mais jàpp naa ne. Mhm. dinañ ci génn. dinañ ci génn euh, la tension va diminuer on va aller vers les problèmes de fond. parce que il faut qu'on débatte des questions de fond. d'accord euh, fan yii passé def nañ fa motion de censure waa Yewwi ñoo ko ñoo ko sumboon. waaw yow nga bokk ci wàllu. Uh-huh. mais nga tëbee wàllu. dugg uh-huh. Yewwi. ma tëbee wàllu. Uh-huh. dugg Yewwi. dugg ma Yewwi. non maanaam bokk ak Yewwi ci seen seen bëgg-bëgg. voter pour je veux dire. waaw voter pour wax ko wax ko noonu rek. voter pour waaw dama ko voté dama voté j'ai pour pour censurer ma Amadou Ba. pour censurer Amadou Ba. Mhm. mais disi euh, Cheikh Abdou Bara doon leen respecté wu discipline de. de de de coalition je sais pas. xaaral man maa ko interview ah si segment di mu ne ma <laughs> moom ma waxee ak moom noonu moom comme moom moom moom moom moom njabootu Serigne Touba la mu waxee ak moom moom baax na mais lu ma ci mën a tontu mooy. Hmm. Euh, mooy ne euh, euh, ñun moi je suis dans l'opposition c'est clair lu ñu fa andi ñun. xam naa ko mooy opposition c'est l'unité d'action Yewwi Wallu d'accord lu ma ci déglu ma lu ma ci dox mhm. depuis 2017 mhm. yàlla xam na ko homme politique yëpp xam nañ ko fii ci Sénégal mhm. n'est-ce pas loolu laa gëm parce qu'il faut bloquer Macky Sall wax naa ko bind naa ko loolu moo tax ma ji ci liggéey loolu suñu àndee assemblée nationale ñu nekk dans l'opposition l'opposition doit se manifester dans le vote du budget munoon ne yow yow tu es opposé à nga di ko voter budget parce que ça veut dire que yow en réalité d'accord nga politique Macky Sall que si tu as un problème avec lui c'est un problème personnel d'accord d'accord te c'est extrêmement grave man jàpp naa ne man problème personnel ak Macky mhm. ni avec Amadou Ba ni avec Abdoulaye Daouda Diallo ak ñoom mhm. franchement j'ai aucun problème personnel ak ñoom mhm. mais dama d'accordul fu Sénégal Macky Sall pare la ko bëgg a yóbbu maa ko bëgg a yóbbu Sédhiou xam nga ñu ñoo ànd. d' accord muy benn ñu ñu ñu ñu baral parce que waxtu ñu ngi may xamal ne léegi mu jeex. léegi mu jeex waaw ñu may quelque temps quand même. parce que am na point parce que mm-hmm. loolu c' est important mm-hmm. léegi. Mm-hmm. motion de censure bi. buñ ko tegee ci table bi effectivement euh, euh, yaakaar naa ne mënoon nañu avoir plus de réflexion de concertation de stratégie ak yooyu. mais amu ca. Euh, commencé woon na. mais dénoncé quoi. non commencé woon na mais xam nga rek ça demande bon. Mm-hmm. man am naa ci pratique am naa ci expérience ak yooyu yàgg naa ci donc euh, euh, bon finalement Yewwi ils ont décidé de le faire ok mm -hmm. bon d'accord def nañ ko euh, léegi qu'est-ce qu'il faut faire lajj bu métti am ci défaite bu métti non du défaite si non xam nga lu tax du défaite man lu défaite man interprété wu ma ko man gisee wu ma ko noonu non c'est honorable aussi waaw bàyyi ma ma terminé waaw ah, baax na demal mm, bon le gouvernement n'a pas été censuré Amadou Ba daanu loolu nga bëgg a wax ok yaakaar nekkoon seen jubluwaay. non non xamoon nañ ne loolu am non non xamoon nañ ne du am. xam nga lu tax. kon xam lu tax non déglu ma maa lay expliqué xam nga lu tax. Hmm. dans le vote du budget. le budget qui a été le plus contesté c'est celui du ministère de la justice. Benno Bokk Yaakaar 84 voix yaakaar naa ñun l'opposition 80 voix. Hmm. je crois waaw am am kenn ku abstenir. voilà les proportions. xam nañu lool waaye yooyu xam nañ ko Birame Souleye xam nañ ko Abbas sal xam na ko Abbas Fall xam na ko donc xam nañ quel est le rapport de force dans une motion de censure donc suñuy dem ci de censure xam nañ lu tax. comme tardel nit ñi tardel nit ñi ngeen bëggoon rek woo ay ministre dañu bëggoon xam ndax Amadou Ba. perte de temps et tout. dañu bëggoon xam ndax Amadou Ba ndax Amadou Ba léegi moom dafa tuub jébbalu complètement derrière Macky Sall fas yéene ko jàppale jusqu'en deux mille trente cinq ambition présidentielle Amadou Ba. yu mu doon dawal bu quand il était au frigo ndax yooyu bàyyi ko loolu lañ doon bëgg a vérifier. testé testé testé nañ ko. te testé marché na